soxna su fi ànd ak góor ba am doom dootul ñaar si àdduna waaye keroog ba ngay matul la suñu borom di def sa xel bu doom di juddoo la suñu borom di def sa xel ne fàtteel douleur yi nga dund yëpp moo waral ku am doom amat mais bu nekkuloon fàtte ku am benn doom dootoo ko amati durant ta ta vie le reste de sa vie bu ko defee kon ñu ñu comprendre ne fàtte yàlla daf ko mooñaale si nit waaye nag condition yi gën a mën a tax nit fàtte surtout si wàllu ménage moy ngeen ñak may seen jëkkeer yi jamm parce que jëkkeer bu fekkee yow li nga koy teeroo mooy lii manqué na ma feebar torox na fi la wara dem li la fa wara yobbu facture courant baa ngi nii facture courant ndox baangi ni problème yoy xamoo lu mu jëlé fu mu joggé nga ñëw exposer ka waat problème yoy muy sang nga top ka ay problème mu summeeku nga topp kaak ay problème muy reer nga topp kaak ay problème mu yéeg tëdd nga topp kaak ay problème ba mu far nelaw nga nga yee ko di ko souligner ay problème bu ëllëgee bu sa ay jotee bu fàtte sa ay yow jàppal ne set très kon foofu la ñu waxee soxna yi nañu may seeni borom kër jàmm ba duñu fu ñu ayee bu ñu sañoon bu ñu fa ayee tey ayewaat fa suba mais am na ay yoo xam ne tey yàlla seede na ne boo ko ayee boo sañoon sax dootul amaat kon loolu yi nañ si bàyyi